Sencase centralise l'offre immobilière au Sénégal. Chez Sencase, vous trouverez les professionnels pour réaliser votre projet de construction et de rénovation. Kadi Gold, une nouvelle vision de la bijouterie. Resto Ataya Bibol et Nyop.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 Jusqu'au 31 décembre chez Neptune Optique, profitez d'une réduction exceptionnelle de 35% sur votre paire de lunettes. Contact 76 651 41.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 Si le ella pot Cheikh dafa jël ay takayam dem tay ko rien que pour ay puukare. joli bracelet. merci Ya am góor nag. en tout cas daal xamal ni que dara jom la et que par la force de la volonté tu peux tout faire. Son papa bu ñëwee dinaa ko wax carrément ne ko dañuy génn kër gi wuti appartement. écoute-moi mon cœur je préfère ñu toxique ci kër gi bañ déménager.

kaddu gi ben la te man mi lay la princesse jam mako yor gis nga kër gi lu man neex rek mo fi am man rek may dogal fi rew mi tollu xana do xol man lañuy top chéri Brigitte xam nga lan metti ngay géer ak nit ko xamanteni yegul ni yaangi ci kër gi man kapola, la soxla ma renfort parce que da nga hypocrite mo tax kàppoo du ko wax da koy jëfé te kër gi nga tuddu ni une semaine la la may pas plus nga talal ca caaka nyaay wa ila du khalil du papa njugo ñi nga yaakaar au oh, secours mo du fi amé gis nga ñaar ñooñu nga tuddu ñoom lay tiitaroo fu ma tollu khalil ñak sëram gënal fuf ñak jabaram papa njugo mom mom boko ko ñiko talal ko tànnal kon nga ñak baye Fat Bintou bu la leeree ne kër gi di nga fi génn rek muy sa jàmm. Marème ça va xëy nga. pourtant yow laay nuyu de ça Faa dégg naa la de man maa la fayul. ah bon Faa Bintu yow ban ñàkk fayda nga gis ci man ak ban manquant wala yow dangaa foog ni sa yi ngay def ci kër gi tooxi duuna yi ngay def amu fi taxaw yow wax la ko Marème li fi xew bari na waaye du lépp lu jóg rek maa ko yëkkati yow noppil doo noppi nga naan lu jóg rek maa ko lu jóg maa ko yëkkati Faa Bintu yow andi woo fii ci kër gi ay mystique fekkoo lay laa ci saal bi mu toog nga di ko xas naan ko da nga yàq góor ah faa bindu sa ñeme gàllaaj ñeme sunguf ñeme reen tax nga eseg sa cere tam xarit nga luppee ko gisin la rek xaw ma nag ndax sa bos la wala niñ la ko nettalee la ah. mais Marème soxla moom mystique pour am li ma bëgg ndax lan dangaa yor ba réew dëgg la dama lay xamal leen nag jamono jiñ toll loo yor yor yor ta amo respect yar wo da ngay muju ñak ñit ñi ta ma xam nga ne man dama paré ci yow xam nga lool dama paré ci yow ba nga jëlé sama chamé ngir ko këyit lu ñew won ko lanen naga xamne nekkul ci yow fa nga nga jog ñew sey ci pour am ak sama chamé nga doom ya fo da ngay nan ay waw da la déranger ma la ko wax eh eh eh eh, eh. kaay sa oto na ma xiddi du sama oto oto xalil la oto xalil sama oto yéeg bon bi tukki ñëw rek foog ni yow yaru nga baax nga te yaa gën a bon ñëpp ñëpp ñëpp ñooy lay seti joojoo joojo joojo lii la ma sama moom doon nan ku dul fay du musa fay yow yàq bi nga nekkee lal la yow néeg bu ma dugg bu ma fekkul lampe bi di tàkk clim baa ngi tàkk wala nga branche chargeur bàyyi ko noonu gis nga courant bi danga koy sakkanal boo bëggee mu yàgg da ngeen koy yàq ba pare boo jugee nan dafa ya, gaaw jeex dafa gaaw jeex boo ko nan la yàggee. mais papa maa ngi jégalu n'est-ce pas fay nga ko jaratul ay wax yow ni nga yeewoo tey dëgër na de ni nga fanaanoo la. baax na ngi dem xëy. eh naan na sa café soog a dem. merci beaucoup. Sodé Thiam day yàgg rek waaye aphrodisiaque gi may utilise di ko def ci sama lekk di ko lekk di ko naan du man ngay tëgg <laughs> dinaa la tëggal làmb boo xam ne daan la daan sama bopp. xarit doo ma ore oor yëpp danga ko mbarante. lii laa bàyyi di yokk lii sama papa mu ko jëndal ak papa Sadiq. yow sa papa nan la lay jëndalee oor yi te jëndalul sax sa yaay oor xarit. man ngay nabatu. sérieusement nag li nga fi gis nii yëpp laay pen xoola ñaar la fi am Ousseynou benn ustes yëpp sama papa yi ñoom ko defal. Hmm. xam nga damaa yaru moo tax ñu may defaral lu baax. yow mu réew mi nga ne dangaa yaru mais na je suis de toi nga xale bu xam loo bëgg nga su la neexoon nga jël takkaay yi.

bokkul sax looy reetaan yow ak Faa yéen a bokk même conseil yi ngeen ma jox démb lii rek la ma doon wax textiles xalicaam bul ma comparé ci ak Faa maa ngi jégalu mais sérieusement nga foog lañ nekk ci def nii juumuñu ci lan dama xam ne depuis boobu ñu ngi provoqué Faa te gis nga riposté wul deful dara te man yaay sama Leila et je t'aime

ayca ayca bàyyi nekk leen si liggéey bàyyi Omar. ci Omar. yaa ngi dajje. daajuma de damay appi avant. booy amal yar da nekk si liggéey bi li la liggéeyloo. mais li nga ma sant moom laay def ni liggéey liggéeyu dara yow ngay tapale nga naan ma lu nga ñàkk jom. ah xoolal nag bu mu jàmbi dafa dog de man nag may bàyyi ma liggéey ci yërmande doo Guardiola doo Ancelotti bàyyi ma lan la. Eh, xale bu ndaw nga laa la wax góor-góorlu nga mën a tere sa bopp tere say waajur maa ngi lay waxoon nag xamoo ko ci kanam nga koy xam yow. ñàkk jom mais suis namu naa la de ci loo nekk je yow laa fanaanee gént mais l'autre fois bi ñuy non, tu sentais bon barki Serigne Touba mais xam ni dal damay mujjé dé rek ndax yow quoi ni ni dama la nam barki Serigne Touba ça va Oh, yeah. Right. Hey, grand Sadiq. yaa ngi rey rek. may xoolal neex. waaw war naa neex jàmm. maa ngi sant bu baax. bu baax na. day góor. nga ñu gisee. ki ngay xool Badou. gis nga de. waaw yaa ma gën a xam. waaw noonu la. Badou ñaareel bi la. waaw yaa ma gën a xam. ñaareel yi mooy loolu dañuy yóbbu xel. ñaareel bi moom bu la matee seytaane rek. macha allah non kii moom ëpp na ma seytaane ah. waaw te xam nga ñaareel dañoo am cas kon yàlla na yàlla barkeel amin waay amin waay amin waay amin waay yow moom boo ma mu nangu incha allah dina baax yow moom boo ma Naga fi? naka fii waaw fii nag alhamdu quoi ah. ñun góorgóorlu bu baax a baax ñun góorgóorlu bu baax baa mi dox waaw nànk-nànk nag waaw nànk-nànk ah. naga sa waaji Omar sànq avant ngay ñëw moom laa doon xulul kii des damay torsé di xalaat ne est-ce que ci famille bi la bokk quoi dafa ñàkk jom quoi. Omare. bul xata. une heure la la may. lol ngay defar non nga ñew indil mako ma xol bu talewul sa gadj gi dina lak nga taxona da ngay jurgot ko ki amul jom sax. lay euh ki la doon wax si soxna eh, jali xana du fam bi nek France kay. waaw. Mhm. def na commande. Mhm. mi ngi te xam nga moom ay commande am du ndaw. commande bu njëkk si laa takkee aw. moo tax ma bëgg ni ma daan taxawoo. si mm-hmm. liggéey bi. Mm-hmm. nga gën ko yokk. bul jaaxle. wóolu naa la si. incha allah xam naa ni moom bii moom boo ko defee après sa reliquat rek dina mën a takk ñaareel bi. kon dinaa rey sama bopp ndax xale bi dama koo bëgg. waaw xam na ni loolu moom es bi euh, lépp lu la waay wax lu du dul intéressé wu la mais daal mën na jaar yoo si moom xam naa ni may def ak moom après. waaw kii moom. jom amu ci lu bëri. li ma la wax tifli da ko tani. grand bi kontaan naa trop maa ngi maa ngi dugg merci waay Sadio. salaamaaleykum. Khady. ça va noo def Leila. waaw ça nekkul si néeg bi de. taawa. waaw. amoo ko ma booleel pour mu mën a teel samay nga ne laal Khady. taawa nag ñëpp xam nañu da ngaa teel a say takkaay boole maag sa waa rek entre femmes on se soutient de. Khady Thiam yow mii réew nga de waaye na baax na si moom nee dafa maanu rek mu seytaane mu sóoram du xaw ma lan. nee na faa la àndal lu faa daj dina ko daj tey. cum maa la wóolu de foog naa ne sax que tu m'avais lâché. lan la jolu xanaa. lii de laa la waxoon amul benn njëriñ laay pen rek ma jaaxal. laay pen mooy sama plan S au cas plan A bu échoué. nga ni ma. S bi laay pen ko def benn projet laa ko gëmloon damaa bëgg ubbi salon léegi nag moom laa ko fa tegal say su ma soxlawee xaalis rek projet bi laa koy indi. Khady yow yaa ngi absenté de ba jàmm la. laay pen de man sama projet bi laa bëgg mise en place. instant yi nag si dajale fond bu métti laa nekk. ñaata nga soxla. non t'inquiète naa ko gérer est lu mu bëgg mooy nga conseiller ma xelal ma vu que yaa ma ëpp expérience affaire de xaalis nag moom bëgguma ko dugal sama diggante ak yow. Hmm. mais projet bi ma xam projet lan la quoi pour mu mën ci wax sama xalaat. dama bëgg ubbi benn salon de coiffure. Hmm. salon ya hmm. de coiffure. non doone ma sa jàng danga koy bàyyi quoi ak coono yi ngi si daj yëpp li ma wax dama ko sax xam nga salon dafa yàgg nekk sama rêve. ubbi salon bu rafet bu classe bu chic waxuma salon yi de salon VIP nag laa la wax. non salon yow duma bàyyi nga ubbi ko boo demee salon VIP rek la tamit man VIP la da nga fàtte léegi man moom dinaa ci def lu mu mën dinaa ci xar sama tàngu bu baax ndax yow sa mbég sama mbég la sa ndam sama ndam la loo dugg dama ciy dugg wàllu moonin bi nag bul jaaxle jàppal ne mi ngi ci yow ndax loolu xaw nu mu toll mais man koy bul fatene nak man la lay pen l'homme qui n'a jamais perdu sa valeur ce projet bu ndaw bi sama valeur si mom lay perdre non non non bo tëddee nelawal ndax bëgg mom du wax kessé dafa and ak jëf dina wax dina jëf t'inquiète pas ah di nak xali yow mi nak am nga fit nak commencé na la ragal nak de yow mi soxna Oumou. jërëjëf yaay ba jàmm ma jàppale la moo ma indi lii pour yow ak Leila. dëgg kay waaye euh, Khalil li ma lay wax nii de boo ko defee ni ma la ni ni ma la ko waxee ah. dina ma neex de est-ce que xam nga ne gàllaaju julit moy muslay jeufandiko ko kum ni ma la koy expliquer lepp lu bon lo xamne nek na ci sa yaram bi dina rocci ko ba ci wit te it kat ma di ko ci tegal mhm. ma waxati ken du la munal dara tous na de rien tasar bi de ci sangu suba ngone Lima nga di ci nan lima la wax nak nang ko defé nima la ko waxé incha allah soxna wu ma. yaa ngi papa. sa papa mi ngi si biir yow doo déglu lu la sëñ Fara di wax. baax na maa ngi ñëw. waaye xale caam mi nit la ah kii yaakaar naa dafa dëgg liggéeyu jàmbur. man jaaxle naa ci xale bi nanguwul muslaay nanguwul protéger boppam dara daal nanguwu ko ci boppam. salaamaaleykum. maa indi woon ay or bëggoon nga xoolal ma ñaata laa si mën am. xoolal la ñaata la xool naa ko de waaye mën naa la cee fay deux cent cinquante mille. deux cent cinquante mille sëñ bi yow gis nga li ma la jox. gis naa ko kay. deux cent cinquante mille baax na. xaaral ma am ku ma woo xool ba. ok pas de problème. allo waaw lay mën ma fekk fi ma fekkoon keroog waaw d'accord ma la xaar bul yàgg nag xaaral mi ngi ñëw madame Thiam dinañ étudier ce dossier administratif en attendant le dossier technique d'accord normalement dans deux semaines vous ngeen jot ah lu mu gën a gaawee moo gën sinon dinañu raté ouverture année scolaire bii di ñëw ce qui veut dire à l'année prochaine. oh non non duñ fa àgg Je vais respecter délai délais..! pas d'inquiétude à ce niveau. vous les kayit nous ñu mën a une date la commission juridique. ça marche parfait merci beaucoup de m'avoir reçu et euh, je vais vous laisser travailler. merci à vous. merci. Merci beaucoup. Au revoir, à la prochaine. Votre série revient après la pub. Kadi dal mo bëri doole. Kadi saf sell te wóor. le la mel ah xoolu taaw ah nii nga def. xoolu taaw ngi nii. ah na def ni. merci. neex na ah sama jéeg bi. C'est dal Hall Punch. C'est ak punch c'est une série Babel. Resto Ataya Bibo et Sencase centralise l'offre immobilière au Sénégal. Chez Sencase, vous trouverez les professionnels pour réaliser votre projet de construction et de rénovation.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 Optez pour les tenues et accessoires modernes africains disponibles sur le site awalibis.com pour une livraison partout dans le monde et dans les plus brefs délais. Johanné Couture, une belle tenue augmente notre confiance en nous. Global Textile Asenfal Fall, Parcel Assening, Unité 12, tu es tout Sénélec, Déjà gros et demi-gros.

kuma xamul dégg nga ma je le sang noble ñeñu ci yaay ñeñu ci bàyyi bété bété la ok suma don mala tay la dum lay do fi ku lu fi teggul te teggul ma lo teggu baxul baaxul bon comme lol nga wax bon ma don jënd xolen fenen fi ngeen ko yob peut être mom fay la lopp loolu loolu jaayatul sax gis nga yow lay blâmer quoi ñi ay clandestin lañ ñi ñoo yak liggéey bi ah merci da ngay sangu nag tenni maa ni ti tila muslay léegi la sëriñ bi dem dangaa mën a tardé ci la jox numéro nga wo waaw Leila sawa Lilo Ya, man ma ngi ñëw dem sama pause jeex na yo balé sa bité yi té xalitaan téel nii Ya yaay yow ya gëna xamné man yi man bugguma ko jox bëggoo ko lii di muslaay nga ne bëgguma ko. boo ko sangoowul dinaa ñëw sang la ko. xaw ma ko jugul si ay doomam. waaye man Umu Caam damaa jóg ci samay doom fas yéene leen defar ba mu baax. waa ma xale sax ci cumbukaay yi. waaw waaw yéen ñaan ñépp ci cumbukaay bi ci zaahir ak ci baatin nag. waa mi di tubaab. tubaab ba ci lan. Ah. en daal xaw ma ko ku jegewul ay doomam de way yow jégué nga ma xana kon jamm mhm. ah, am mom la bëgg ak salaam waaw khadim hé laay bi danañ gisé trop ba yaa ngi am jamm rek ma ngi sante yàlla alhamdulilah naka fi waaw sante ñi ngi sante yàlla bu baax waaw fi mom ñi ngi fi di def yu baax rek fofu la sax waaw liggéey rek alhamdulilah waaye sante gaay ki mom sama jarbaat la daal eh, soxna si naa def amee ah, mais sëñ Xaadim pour bañ sa temps. lii de laa indi woon xool lan laa ci mën a am ku mu weccookul ma ko. ok c'est vrai. laay lii la laay lii nekk cinq cent cent mille wa baax na yow de bama joxon ñaar dërëm sax ma jël ah, ndax sama way nga yow mom si njub la xam ok mam mam defaral ma facture bi non non ah, eh, ah. mi ngi ah.

mais en fait dafa am luma ma quoi moo tax ngay jaay sa Dakar yi newoon naa dama am benn projet moo tax ma bëgg investir. mais dis donc lan laa la waxoon projet boo am ñëw wax mako man ma géré ko à ma manière. La peine chaque jour ma wax la ni ko soxla ma góor bu ma défendre ni pour bu may défal. sama digënté ak yow lalawul lu dul si ay sentiments. mais sànq gis na nga jaay sa takkaay yeb mais bi ni lutax jaay ko xana da nga koy xoolee. sekkuma ko ak moom ndax nekkatul man ak mom lay fel man ak ousseyn amatu dara lo xew suñu digal fel dama ko koy delo loolu nga tek sama loxo de xam nga capitaine man yaay sama capitaine. gis nga Ibrahima. sen parcours client bi soo leen ko xoolaatoo jëm ko rendre moins fastidieux pour seen utilisateur yi di ngeen perte ay client de gis nga dafa am client yoo xamante ni dès que problème am na rek dañuy daw donc s'il te plaît xoolaatal sa liggéey bu baax Ibrahima Ibrahima. Hein? ça va. Tu vas en parler Non, t'inquiète. a tellement d'un accro de l'équipe pour beaucoup Et je ne vais pas t'ennuyer avec mes bêtises. Ah, je suis désolé, je suis désolé. Je voulais pas te frustrer. Non, Dodara, c'est pas le cas. En fait, dans ma dama dans ma tchasso, c'est mon quotidien mon qui est perturbé actuellement. Je ne sais pas mais là, je suis partagé entre une partie de ma famille et ma femme. Bon, un dilemme. Qu'est-ce que mes famille de ce soxna da nga leen war toujours taxaw soutenir leen man nag wàllu say je ma ci lu bari mais bu communication entre yow ak sa soxna warta mën a dakk gis soo amee loo bëgg a wax wax ko génne ko sa xol que muy sa soxna wala muy sa waa kër loo war a wax wax leen ko jaru sax nga leen di weer ku ci nee la nga ko war a wax ak fan ko war a waxee waxee ko ko foofu te bul fàtte ne tamit kilifa nga. Franchement, tu as tapé vraiment fort. Et je te félicite. Tu as fait un coup de maître. Sabote sa matière et tamkharit pour appeler sa badjan Leila. Gis nga soo bëggee fekkee ëllëg di nga gën ci sama diggante ak Leila muy Ben. et deuxièmement li nga nekkee yëpp nga yaakaar ni que yëguma ko je suis au courant ni ngay jokkalanteeg xale les yi say taxawaalu lépp laa xam ani une élégance Life and Valeurs mu ci jàmm gis nga boo dofatee ba dugg ci sama garde waxuma la Canada de mais Pout gii rek la wax

C'est un problème lu mu rëy il faut nga capacité mën ko contrôler du problème day am rek nga mer toj kaas non non non il faut ngay bës sa xol il faut ngay nangu tamit di il faut ngay noyer yu bëri sa xol rek la dimbali ma bëgg wax xaw ma kan lay waxal nan lay def. su <laughs> boobaa tu pourras toujours compter sur moi pour t'écouter. seen doom laalu ma ko de. mais dafa mooy. léegi laa am problème muy yow ak Marème mii laa wax naa ba yaakaar ni que nag xarit dina gën doomu yaay waaye naka tey yéen seen biir rek. Eh, dimbali ñu nga naan la fi lan nga fi dugal yow je parle ma ñëw. allo. allo grand. Khalil. mais defal ndànk. Eh, a besoin de toi fii ci kër gi laa wax. dama xew defal ndànk. eh déglu ma laa wax Waye sa jabar bi ma tass kër gi Lool duma ko nangu dañ la soxla en urgence j'en ai ras le bol laa ci histoire kër gi right now dem waay fuck you man nga ne lan baax na ma ngi lay xaar lan la le je suis vraiment désolé on va reprendre ça plus tard prends soin de toi et merci beaucoup pour les conseils yow eh. eh doy na sax jooy yàqul ordinateur bi ah. yow dimbali ñu. Ah. lan la yow. yow li jënti woo sa loxo doom dinaan ordinateur. <laughs> eh ah, xanaa madame Thiam ma fonto yow dégg nga li ma eh. sama doom laa may doomu aadama teg ci loxoom laa la wax. te loolu man maa ko lijjanti sama bopp. lan la góor mer waay yéen. góor góor góor la nag góor ay wax góor <laughs> góor ay wax. xool ko eh, na Oui, ma C'est une fayda yi nga nekk néew ma si. lan laa de doxantu sama saal léegi crime la. man duma sa morom sa kilifa la am un problème man ak yow nan toog a waxtaanee ko mu jeex moo gën sa yi ngay def nii doo si am benn tiyaaba y sa yii di ñëw di taawee sama kanam foog ni day ma songul du ma la song yaa ngi naan sa bopp. c'est-à-dire yow lan nga ma wax la. li ma a comprendre mooy lan moo tax pare woo pour am ak man doom te jigéen ñu baax ñi sëy ñëpp dañu bëgg am doom mais yow lan la da nga maa bëggul wala bu fekkee dafa am loo xam dafa ne sa xel te xaw ma ko nga wax ma ko. gis nga Sadikh man joojo amul dara loo war a xam ci man te xamoo ko dafa fekk ni pareeguma pour nekk yaay la nga mënul comprendre ci loolu ëmb am relation bi yaay di am ci doom wusin nampal tete pareeguma pour loolu. gis nga li nga fi wax ni yëpp waxu yaay ju baax rek la bu doon keneen la du sikki sàkk lii yëpp. man leer na ma ni tey ku la am am yaay ju baax lan la lan ngay xalaat lan la. cest à sikki sàkkawu ma dara wala yow doo dégg bëgguma am doom c'est-à-dire bien comme ça pourquoi nga bëgg ci yokk leneen lu ci bokkul luy yàq. waaw lan mooy leneen doom doom mooy ma man Ababacar damay am ak doom sama soxna te loolu dafay am par force dégg nga moomoo sama yaram ëmb ma. wusinu ma nampalu ma. wuy ma téyel sa yaram man bu ma la laalee yàlla naa nday torox. cent un cent deux cent trois cent quatre cent cinq man xamatuma sax fan laa yemoon quoi. Tuh kan xale damaa bëgg nga wax ak sa soxna parce que li commencé am ci kër gi ci temps yi mus li mus fe mus fe xaw Ya may dégg xamuñu ko bëgguñu ko ñun jamm ak salam lañu xam ka foré. bi ngeen dem France mom nga ñu bayé bo ñëwee ak sa jabar nak du ngeen ñu déstabiliser suñu kër Ya ngi dégg wala ak mom? mais grand lan mo xew. eh Khalil jam, amu grand lan mo xew dafa jot Khalil léeb lebal gi ak nepp neppal gi mo jeex tak dafa jot pour nga wax sa jabar lan la. man de xamna ci dara xawma da ngay wax ak mom? wala do wax ak mom waye gis nga fa ba loxom lalati sama dom dina ko won sama couleuru bejo won nako nak du jeek man mi may jeek khalas ah ken mës gis li mujjé ñew ci kër gi mujjé sey si bëgg xañ ni jam tok seen kaw bop kenn du ko ko fi maye tay kenn du ko ko fi maye ëlëk du dara do nga ko té réewande rek may ki koy faj te di ko man mi xay wax ma leen ngeen nopi wala na ngeen déggu sama wax xam na ne ñëpp man ma seen kilifa li dal la dama bëgg nak nga wax ak sa soxna wala man ma jël sama responsabilité ba ma sëkk tok ak góor gi wax ko li xew ci kër gi tay yi te kenn indu ko nag lu yeen ñi sinon vous génn abal choisir coucou ma fleur. <laughs> comment va l'influenceur de la maison. waa fan fan pas lu waral sa bi tax nga waaye arrêté yow tamit kër gi aw fi sens interdit laisser passer laa fi am fu ma neex laay taxaw waxuma loolu de xanaa bëggoo xam fa surnom bi jóge faaxarañ loo ah laajoo hmm. <laughs> lu tere man damay wax dama ne yaay ndayu kuli influenceuse du monde yaa mën kay yaa ëpp doole ak fi réew mi toll kuy defati métier influenceur na top topp ndax yow kat nak ya fi commencé mystique bu wor sax di mystique di soul di sangu di gas ba ci man mi sax njëkkee buur légui yow laay toppandoo khalil mi nga xamantene ne la won sax légui ah fa nak yàq nga xalil nak day reen di sangu di souru bolé ci nak di takku ba deugar da ngay fenn ah i waaye yow wax ay gros mots baat bu ñaaw ci man mi ci sa njëkke boobu ah déedéet. dégg naa seen wax affaire xadi bi xaw ma nu mu demee mais man xam naa sama jabar sama jabar ak ni ma ko xamee du sax rey melentaan bay dóor xale. ah kon ñun ñooy fen léegi du dégg ngeen kon ñun ñooy fen yéen a ñu ñu respecté ci boppam te lépp nag yow la yow Xalil yow laay waxal joxoo len du benn cër pour yeen ay mbaama ne ci kër gi waye man de man la wax man bu gey la wax de sama jot nekul ci keneen gis nga fa boko ko wul man ma koy régler à ma façon te bu boba du la neex ah. ha ah, wama ne ñen noppi yeen mais dañu ngeen sama wax Khalil cham ne nga xam nga sa jabar wa ñu nit xam nañ suñu dom te yow dom ji sa dom la sax yow jamono ji dafa mel da nga réere mbokk yow Khady du fen da nga foog ne xamuñu li xew.

yàlla génn sama nekk. Eh, boo ma laalatee yow Fatou Bintou Ndiaye dama lay nokk ba nga duul waaye yow kii lan moo ko dal yéen. yow nga ni kan ngay nokk. xanaa yow daaj la jaxase la ba mu neex laa lay wax laay def te du ma ci seet kenn. est-ce que yaa ngi may dégg. Eh. yow tu te prends pour qui tu es une vipère. tu penses quoi que dinaa gëm li nga ma wax ci Khalil. eh fu ngeen yow eh, demal ci néeg ba yow nga doxee sa soxla li yëfi góor la. eh da ngaa juum de ndaa ma yëgul njool te duurkat bu mag bi nag yow mii la ndax duur moom fi réew mi toll yaa ci toog. ferme ta gueule. eh mais yéen ñaar c'est quoi votre problème ah yow da nga yëkkati woon soxla pour dóor ko dóor ko mi ngi nii Leila yow lan ngay def ci néegu jàmbur du la ko bañ demal toog sa néeg gën a néeg. am. je n'ai marre je n'ai marre de tout ça. Vous m'énervez Tu me déçois de jour en jour. bis tu yàlla sàkk rek nga war ma ni faale mais gis nga bu ñu mbëkkee nday miir bi tu vas assumer les conséquences. assumer au moins moi j'assume faire tes sa bopp Khalil yow doo koy assumer de boobu ba tu fais que de fuir les problèmes di daw histoire yi teg yak di Oui. sa jabar oui sama jabar bëggul am ak man doom sama jabar day naan pilule loolu nga nekk di wax ci mbedd bi non. De quoi tu parles ñu ne waaye déet encore nga yokk si naan da ngay dem di uti sëriñ pour muslu ci man di ban di nan, di takku. c'est vrai ça tu sais quoi tu n'as même pas besoin de répondre à ça Khalil xam nga laa bëgg xam su fekkee ni que amatoo confiance ci man que wóolootuma lan laay def ci sa kër Khalil su fekkee ni que tey jii nii mënatoo toog ma wax la dara ba nga gëm ko qu'est-ce que je fous encore chez toi. gis nga lii moy li la Je mu le ay cadre yu yu ñu waxanté won man ak yow muy metti muy neex ñuy dem ba man ak yow suñu day gëna a fat bintu li la fi ba promesse pourtant bari na ay promesse ñu def ba paré rompre ko tax exception à la xale يو كان nga waxul suñuy problème ani sutura kan nga si waxtaanalul rek laa bëgg xam sa baay sa maam sa bàjjen xacc yi mbaw picc yi sab gis nga ya yow su amee lenn li ma metti mooy غاي fekk ngay wax nii rek te xamuloo sax li ngay wax lan la preuve palpable ci li ngay wax xali yow ma yab ma nek ci kër gi di reyante ak sa waa di supporter ta famille de malade pendant que toi tu passes tes après-midi avec ta cougar de meuf pour lan loolu. c'est cette cougar là actuellement moi ben nit bi ma mën a déglu mooy wax moom ginnaaw yow bi ma wane ginnaaw sama famille war na ginnaaw ndax yow lenn rek moi li la ñor mooy defante Fatou defante mon tax nga ma ci biir gi. defante ma xañ sama bopp jëndal la oto nga bàyyi fi oto bi naan da ngay jëli fa bintu defante moo tax nga wutal sa bopp rendez pour crèche bi te mu wóoroon ne man maa ngi si loolu yëpp pour wan ma ni danga jël sa yoonu bopp te mënal nga sa bopp lenn lay sa conscience y y a date dans sa parce que sais pas